bi lépp euh, live di euh, loi d'amnistie votée pourquoi mm-hmm. Sonko est toujours en prison alors ñu ñëw nag euh, waxtaanee loolu xam naa ne waxtu bi xoj nañu alors. waxtu bi xoj nañu te dañoo woor. te dañoo woor alors ba léegi lan moo si sa xalaat lan moo waxal ba léegi kii di Ousmane Sonko ak Bassirou Diomaye Faye des sa nungu sin man de su ma dee def une lecture simple pour ne pas dire simpliste dama naan le pouvoir danaan rek su Bassirou Diomaye Sonko su Bassirou Diomaye fay génnee. Mhm. ak Ousmane Sonko élection yi jeex na. Mhm. maanaam. suñu génnee di campagne sa fiir mhm. mais élection yi kii lay doon nu ñu koy waxee sax carnaval di Rio lay doon. c'est-à-dire que gars yi dañuy ànd di fecc ba ci bureau de vote rek ñu voté ne Sonko ne usmaan kii Diomaye gars yi nañu wàññeeku loolu rek lay doon di. Ousmane Sonko génn fii moo Diomaye Faye ñu àndi campagne. mais waa Bennoo sax danañ dem seetaani. yow doo seetaane. tu penses. ma ne la Ousmane Sonko génn fii ànd ak Bassirou Diomaye fay ñu ne ma nga ci caravane bi ñu ngi fii ci VDN wala ñu ngi fii ci Liberté 6 jëm jëm jëm xaw ma Pikine man ne damay dem danaa dem seetaani. d'accord te xam gëm naa ne boo def naag Amadou Ba dina génn seetaan mais loolu pouvoir bi du ko yombale noonu loolu carnaval lay doon loolu ce serait voilà. maintenant dafa am loo xam ne man moo ma ci intéresse te loolu ma tax ma bëgg ma ñëw ci. muy lan defe naa biñ mujjee live fii la. dama ne la la loi d'amnistie ni ñu ko bindee soo ko gisee da nga naan am mbubu muñ solal Ousmane Sonko la rek ne ko am. te d'ailleurs liir naa tey ñu ne l'agence judiciaire de l'État dafa désister ci benn pourvoi bu mu waroon def et que dès que la loi d'amnistie et promulguée Ousmane Sonko. est d'office réinscrit sur les listes électorales ça veut dire que bu ñu ko promulguer d'ici le 24 man day voter mm-hmm. même si mënta nekk candidat parce que jàpp naa ne candidat c'est fini là candidat ce n'est plus possible mais mais li mu bëgg wax foofu mooy su fekkoon ne loi d'amnistie wax naa ko fi keroog ne gars yi dañ ko votelu defar ko noo xam ne soo ko liiree danga nga naan soo ko ko tax a jóg yow su fekkee ne da bokk Pastef wala ngay supporter Ousmane Sonko wala nga bëgg mu nekk président soo gisee da nga naan ah gars nañ ko voté waay parce que Ousmane Sonko génn nag vraiment euh, voilà mais soo xoolee ba ca biir lañ ca dëxëñ moo am solo wax naa ko fii donc mardi mhm. léegi pour une chose simple am na koo xam ne moo ko bind euh, gaaw su xaw ma nan bi ñu doo commencé ne ne il faut ñu promulguer loi bi pour que Ousmane Sonko doog a mën a génn et il raison mais ñu bari dañoo jàppoon ne samedi bii ñu génn la ko Macky Sall di promulguer moo tax samedi quand j'ai vu le journal officiel du samedi bi ma gisee liñ ci promulgué mooy la loi bi convoqué le corps électoral demee noonu dama ne ah gars yi kon ñu ngi ci leneen xam nga lu tax ma wax loolu parce que Safiatou boo fàttali ko tuuti bi ñuy wootee la loi d'amnistie pour que Ousmane Sonko asafurla bi ko pour que assemblée nationale voté ko le le projet de loi bi ko gouvernement président lan la waxoon mooy dañ koy dem en procédure d'urgence dañu bëgg mu gaaw parce que c'est quelque chose qu'il fallait régler loolu boo ko déggee da naan gars yi dañoo bëgg Ousmane Sonko gaaw génn bokk ci campagne bi wala Diomaye gaaw génn man a campagne du loolu nga loolu nga ci doon dégg mais léegi assemblée woote na ko waaw léegi lan moo lan moo tax ba léegi promulgué wuñ ko ça veut simplement que ni yàkkamti wuñu ko yàkkamti wuñu ko te yàkkamti wuñu ko mooy yàkkamti wuñu Ousmane génn est-ce que diggante bi ko assemblée voté ak bi campagne bi commencé dafa am lu fi xew wala ñu gis fi loo xam ne moo tax ñu ne nañ def ndànk est-ce que le président Macky Sall qui est à l'initiative de temps dafa de ça dafa subir ay pression je ne sais pas il y a quelqu'un qui me le pouvoir les gens du pouvoir ce qu'ils disent mooy su Ousmane Sonko génnee c'est perdu ça se règle au premier tour donc pour ñoom il faut que jomaay ak Ousmane ko reste en prison au moins bañ dem premier tour ba pare mais nii campagne biy demee wax dëgg yàlla sa ku bëgg jàmm ci réew mi rek xam nga ne le candidat du pouvoir même bu teewee Ousmane Sonko ak Diomaye pour ne ko demal gañe ji pour mu gañe day jafe ñu mel ni rek xale bu génn di xeex fit wi rëyul boo jàppee kam war a xeexal takk ay loxoom aussi bu àggee waa ji mbëkk ko mu daanu looloo fi nekk donc il faut ñu promulguer la loi comme ni ko waa ji waxee sànq bokk na ci raison yi mais la raison de de, de du fait que le, la le président prend son temps avant de promulguer cette loi là jar na waxtaane et et mieux même si même même bu ñu promulgué wul loi bi mais une liberté provisoire ak yomb ak a yomb tey si la bu fekkoon ne ma euh, le pouvoir de Macky Sall bëgg nañ Diomaye fay génn tey jii ci ngoon fan la ñoom daam euh, kii nekk sax xaw ma département de Pikine lañ nekk dem campagne Pikine astafurlah dem campagne euh, Rufisque suñ ko bëggoon mais lu yomb la liberté provisoire lañ ko may rek mu dem. Mhm. comme ñu ko mayee des centaines de jeunes. doo ñoom Fadilou euh, Keita ak ñeneen ak ñeneen. maître Moussa Diop. mais maître Moussa Diop moo ci mujj ñu dem campagne. Mm-hmm. donc li li tax ñu téye ko fa man dama gëm simplement que ni c'est raison très simple mooy ils se disent clairement que ni waa bu génnee moo ko soo Sonko ñu àndi campagne mais y a plus d'espoir. Mm-hmm. te loolu wax dëgg yàlla du du samay wax boo ko laajee waa Benno yi ñu wax la ko. Ousmane Sonko Diomaye Faye ànd di campagne. même même suñ campagne pendant trois jours mais day am une influence extraordinaire sur le vote et ça ils le savent. déjà que ni seen seen ay caravane li muy drainer ci ay foule gisuma benn caravane drainer drainer ko te Ousmane Sonko nekku ca candidat bi nekku ca. ñoom ñu mu turee ñoo ca nekk ki Mari Sagna Dame Mbodj Aïda Mbodj Maïmouna Bousso et cetera et mais léegi imaginer woon. keroog bi ñu nekkee parce que loolu rumeur boobu dawoon na fi. bi bi bi waa past bi waa Jomaay président nekkee Kakapes. gars yi dañu wax ne dañuy jékki-jékki ne Ousmane bu génn na. cool ni kur un jour dama woo kenn ci ay collaborateur am mu ne ma xaw ma de may Ousmane Sonko nekkul këram. te bu génnee dinaa ko yëg. ci laa waxee waa kii yi ne Ousmane Sonko génnul. yaa ngi wax journal officiel bu euh, lundi bi la xaw ma bu. bu samedi lay génn bi mais journal officiel bu officiel noonu mosul gëj gëj ñëpp a ko jot parce que ñu bari dañ doon xool ne buñ ci buñ ko suñ ko promulgué automatiquement Ousmane Sonko day génn ñu ba mais mooy li ma la doon wax ñu bari loolu doon xaar d' ailleurs tu raison journal officiel bu ñu partagé noonu kenn mësu ko gis mm-hmm. alors ku ko xool gis ne loolu nekku ci ci nga ne ah comme comme comme nekk ci Ousmane Sonko génnul mais mais quoi qu'il en soit je clairement que ni euh, Macky quand même moom wax na ko sax ci livre am xaw ma ba xam dëggal wala déet ne moom garmi la. wax na ci livre am ne la wax fi mu bokk yëpp mais fi ñu toll nii c'est le moment de wane ne garmi la wane ne noble la que comme li nga wax bi ñuy commencer mënoo jël. une élection présidentielle kenn ci candidat yi nekk en prison pendant toute la durée de la campagne mhm. ça n'a pas de sens mhm. mieux su fekkoon ne sax dañ ko jugé woon ne dafa def ay affaires yu graaw tee ko su boobaa ñu mën a comprendre mhm. mais Diomaye dañ ko fay jàpp ndax benn post bu mu defoon sur Facebook après loolu ñu ne dañ ko impliqué ci beneen dossier boo xam ne moo ko Ousmane Sonko ñoo ko bokk te loolu ba muy am sax moom ma nga prison toog ba pare teg si ndoddam huit chefs d'inculpation. yooy waaw huit chefs d'inculpation ba muy am moom ma nga prison. Mm. fekke ko. Mm-hmm. yaa ngi dégg bu baax wax bi mieux que ça nga woote une loi d'amnistie boo xam ne yi nga koy reproché sax nee nga effacé nañ ko. Mm-hmm. il ne reste qu'à promulguer mais pour man ça aurait été très facile de lui de dire on accorde la liberté provisoire à Diomaye mu dem campagne mm-hmm. léegi bu ñu promulguer loi bi Ousmane ko génn. loolu loolu lool mooy li gën a yenu maanaa d'accord et ñàkk koo def guddal jël rek lay doon mhm. parce que di ko def d'accord mu mel ni leer na Moustapha euh, mhm. euh, sànq yaa ngi wax xam naa ni foofu la ñuy tëjee mhm. euh, sànq yaa ngi wax jafe-jafe yi nga xamante ne sénégalais ñu ngi ko doon jànkonteel ñi nga xamante ne tëj nañ leen si wala ñi nga xamante ne ñàkk nañ si seen bakken wala ñi nga xamante ne tey jii si jamono ji xamuñu fan la ñuy nekk mooy xale yi photo xale yi ngay gis voilà mais mais bu fekkee ne tamit au delà de ça loyer mu ngi gën di cher dund bi mu ngi gën di cher ba pare salaire bi tamit yokkul. wala mhm. même bu yokkee tamit dund dund bi tamit yokk na donc mhm. fan la ñu jëm. fan la ñu jëm loolu la ñu candidats yi war a wax. Mhm. te loolu moo ñu yóbbu fi ñu déparé woon. mooy campagne la ñu nekk. tey jii yii nga wax nii Safiatou yow da ngaa waroon a espérer di ci dégg candidats yi. ñu naan la su suñu ñëwee lii lañ nar def ci lu yi su fekkee ne dañ naan li Macky Sall defoon la ñuy defaat ñu leen jaru ko parce que bu ko Macky Sall dafa gën a ba lan la ñuy génn seen bopp ñoom candidats yi pour wan ñu ne problème mu location mën nañ ko régler au sein à Dakar lan la ñuy génn seen bopp pour wan nañu problème bu dund gu cher mën nañ ko régler au senegal sa feetu demal Casablanca gii ci Maroc man dama fa dem wàcc fa benn guddi fanaan rek laa fa doon def ci guddi gi ñu ànd dem ci benn boutique di jënd bi ñu jëndee ba pare sama soxna ne ma est-ce que gis nga li ñu jënd yëpp maa ngi yor mbuus yi nii de mu ne ma soo ko calculer à peu près saa te fait pas 2000 fa te te ay mbuus laa yor man sama côté sama loxo. mu ne boo ko calculer à peu près ça te fait pas 2000 francs CFA ça veut dire quoi que ni wàññi dund war naa mën a nekk. te loolu il faut que candidats yi wax lan lañ ci nar dégg naa waa Pastef par exemple ñu ne bay li ñuy dundee. mais bay li ñuy dundee soo ko defee rek déjà wàññi dund. mais comment faire pour bay li ñuy dundee Sénégal am na suuf am na ndox lan moo lan lan moo tax wadd ak Macky Sall réussir ñu bay li ñuy dundee. même si Wade amoon na ci projet Macky Sall am na ci projet ce sont ces questions là la candidat war a tontu. mais malheureusement la presse encore une fois ci laa bokk ñu ngi topp waa PDS yi. naan ay dañuy reporter élection. nangam ak nangam ba fàtte li ëpp solo pour les sénégalais. li ëpp solo pour les sénégalais mooy ñu wax leen ne leen candidats yi lii lañ leen proposé pour seen dund gën a yomb lii la leen proposé pour location gën a yomb lii la leen proposé man dégg naa sax ku ne moom day proposé. chaque mois mu jox je ne sais pas chaque ménage ou chaque je ne sais wala euh, cinquante mille Malick Gakou quarante mille exactement mais proposition yooyu mais dañ ko war a xool ne lii Malick Gakou wax mën naa nekk wala mënta nekk mhm. su fekkee ne c'est des propositions fantaisies yoo xam ne mënul nekk ñu ne mënta nekk mhm. su manee nekk ñu ne mën naa nekk te loolu ñu ko man mooy ñi nga xam ne ñoo jàng économie ci réew man gis naa ku mel ne euh, professeur euh, Mounirou Ndiaye je pense bu Thiès mhm. mu def des post jëmale ko sur le programme bi Bassirou Diomaye fay présenté mais c'est ça le débat démocratique le débat économique c'est ça te malheureusement au Sénégal il y a de bons économistes qui parlent de ça mais c'est dommage que ñun on ne le fait pas. d'accord à commencer par moi. d'accord donc euh, Moustapha ñu sant la jaajëfal la. man tamit maa ngi lay sant di la jëfal bu baax a baax a baax. nee na may nañu cinq minutes may nañu cinq minutes. alors euh, ça sera d'ailleurs une bonne transition comme wax nañ ci affaire euh, agriculture et autres mais.